Abonnez-vous sur votre chaîne OSR Monde et activez la cloche pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. asalaamaaleykum wa rahmatullah mbokk sénégalais yi nuyu naa leen seen mbokk la Medoune Diop wa tawaasaw bil xaqi di nuyu ñëpp waa dama dégg waaw masque bi moom mënta ñàkk ci fi nekk nii pour takk ko waaye teg ko woon pour wane sunu kanam sax daf ñuy gënal pour wane li ñuy wax nii ragaluñ ci dara waaw léegi nu mu tuddati euh, dama dégg benn ndéggtal bu am solo benn audio bu ama am solo euh, maanaam comme te yàlla dogal na ñuy wax waaw ñuy déglu kon bu ñu déggee benn audio rek dañ koy dugg pour mu gën a yaatu ndax idée bi ci boppam moo rafet idée bi moo baax te idée bi foofa la macha allah euh, maa ngi dégg waa ji naan dañu war a def année blanche ci comme Sénégal ni muy doxee nii ndax Sénégal ni muy doxee moom kenn werantewul ne jaaduwut ëpp na jéggi na dayoo salte na ba fa salte yam te it coow li lépp ca kaw la mu wax dëgg gu wér ndax coow li li ko kii lépp ca kaw a kaw la ca kaw la muy tubaab mi nga xam ni moo ñu takk bu mu jaam jël ay poupée leen fii ñu mel ni mbaam sàll waaw kon amuñu président daal dañoo jël rek ñoom teg fi nit di jiite sunu dëkk bi di ñu naax di ñu fowee kon Macky lépp lu mu def ñàkk doon patriote moo ko dal lépp lu mu def rek ci lu bon lu salte rek tubaab bi moo ko ci jàppale moom tubaab la gën a xool daal. léegi waa ji ne li ñu war a def ndax njàng suñ njàng mi même école yi bu jàngee sax njàng mi amaloon njariñ ndax li ñuy jàngal mooy mën a fen nekk ay journalistes yooyu am ngeen am ngeen ci ay seede ñaata journalistes yu mën a kàcc ngeen am. Euh, beneen bi li ñuy jàngal ñaata avocat yu mel ni maître El Hadj mën a fen ngeen yor amul benn njariñ nan ñu jàngal xam-xam mooy ngeen def année balance boo xamante ni si école yi ci boppam affaire bi bu mu seet lii cooki la nan xeex nan xeex Macky Sall mi du dellu ginnaaw Macky Sall mii li mu bëgg Sénégal li mu fi def sax dafa ëpp moom damaa nekk ci liggéey moo tax benn juróom minute rek laa am mën a sànni mais après dinañ gën a yaatal incha allah wala suba mais fi mu toll nii loolu noonu kooko wax idée boobu daal moo ñu gën a tax wax def leen ko mooy na ngeen di xoolal école yi maanaam bu kenn jàng na nekk année balance ndax njàng mi amaloon njariñ Sénégal dafa am lu ñu war a beneen bi tamit ambassade yi muy Amérique bu France bu lépp ndax adduna bii kat ay dundug naa feq gii nañ ko bàyyi gis na luy xew Sénégal ñu ngi ñuy ñu ngi toroxal dëkk yi nekk foofu yëpp ñoom dañ ko war a yëg waa Amérique dana war a yëg xew adduna bi dana war a lu xew mooy ambassade yëpp ngeen dem lakk ambassade yi wala ngeen duma ña nekk ci ambassade yi wala ñu tëj ambassade bu kenn liggéey Sénégal gépp na métti na liggéey bi ferme loolu bu ko defee adduna bi incha allah dañ ñuy dimbali farfoos ndax xam nañ lu xew ñoo gën a xam lu xew Macky Sall mii li mu bëgg a def amul benn loi dëkk tooñ la lii buñ ko defee adduna bi ñëpp ñuy jàppale pour loolu pour ñun la pour ñoom tamit ñu yëg si xam ne lu xew ci adduna bi lan la seen ambassade yooyu ñu ngi fay jëlee dara surtout ambassade France lañ fay am France sax waxuma ko damaa juum damaa juum kooku lañ amal problème yu Belgique ak ambassade yi fa nekk yëpp ñoom ñu ngi lekk suñu koom-koomu réew ni leen neexee ñoom buñ leen kiiwee maanaam andil leen ay problème danañ yëg lu xew loolu zaaru yëgle la yëgle boo xamante ni sama gars yi na ngeen ko xeex de zaaru yëgle la yëgle boo xamante ni adduna bi yëpp ba mu daj wër këpp ñëpp a yëg lu xew ñu jàpp ci ndax adduna bii kat lii kat yoon doxu fi Macky Sall lu muy def nii adduna bi ci boppam la amal affaire ndax lii jamonoy Kunta Kinte la jamonoy jaam la ab négro mën ñu jàpp jaam ab négro mën a jàpp sa moromu négro jaam ba pare nga bianca bi jaarale ko ci blanc bi jaarale ko ci yow dafa doy man affaire esclave ku mu nekkul dund merde ci yow ma damaa xamul lan mooy nekk merde ci yow quoi ko ma kañ ngeen bañ xaw ma kañ la ni kii lii ak notel la ak njaam gu rëy a ndax bu doon nit ku weex moo la ko def yow di nga am loo yëg sa yaram mais ci nit ku ñuul la ko jaarale maanaam takk la jaam mu leer naa ñi gis nga ne ba mu leeree suñu bopp Macky Macky Sall mii nañ ko duute mbaay ñu wax ak moom beneen bi damaa xaw a jàpp moo tax amaan na lu xew loo xamante ni si sénégalais yi war ngeen ci bàyyi xel affaire bi comme li may affaire du ay affaire de Sonko du affaire de ki affaire de Sénégal mais dégg naa gone googu tur bi laa jàpp bi nu dagg ci ay fo teg leen ci baaraam teg leen ci baaraam sama gars yi gone gi nu dagg ba boppam ak ki dóor bal pistolet ba nga xamante ni si xaw ma mi ngi daana comment xaw ma lan ku moytul mu paralysé ci ay fo ci affaire benn jigéen Adji Sarr ci affaire loo xam ne pour ñoom maanaam du jëmmi jigéen pour lan pour toroxal askan wi pour takk sama gars yi Sénégal lu jot jot na ginnaaw deenam billaahi nanu xeex Macky Sall mii waxatuma leen pour dara waaye moom dafa jiiñ Ousmane Sonko njaaloo la wax waaye Macky Sall na jàpp dafa dagg loxo jàmbur loxo xale boobu mu dagg bu fekkente ne ay jot ngeen bu dee jar ngeen xeexal ñun sénégalais loxo xale boobu nañ ko lijjanti loxo xale boobu ñu dagg nañ ko lijjanti gis ngeen bu lijjantu loxo xale boobu ñu dagg man affaire maanaam waxtaan Ousmane Sonko dama ko déglu waaye dama ci ay ndéggat dama ci am ay ndéggat du ma ko déglu sama gars ngeen partagé dama ko dama ci am ay ndéggat quoi mais li ma ci kii li ma ci métti dafa bëri bokk na ci loxo xale ba ndagg loxo xale bi ndagg kin dóor bopp waaw pourquoi ñu dóor ko pourquoi ñu dagg loxo xale bi ak ñi nga xam ne jàpp nañ leen pourquoi ñi nga xamante ni si ñoom mbuum ak jaam leen bëgg mu dog maanaam li fi leerut ay sàcc yi fi keroog maa ngi gis ñu bind benn poster boo xam ne di wax mbooloom xeetu sàcc bi nekkoon Sénégal doon sàcc ñu def ci rakku Macky Sall bi ay Tahirou Sarr ay keneen ak keneen di lim li ñu sàcc ñooñu ñëpp ñu bàyyi sàcc assassin yooyu ku ci nekk ñu def ci croix léegi ñu jàpp ay gor tëj leen sama waay Sénégal dafa jot loo xam ne xoolal mbéjum kanam borom moo koy fajal boppam Macky Sall dong ak waa këram ñuy kii billahi wallahi lii buñ ko seetaanee ñàkk fayda la te dafa jot nag dama ni leen combat bi dama ni leen dafa amul ay chef sax ak capitaine pour ngeen bàyyi ci xel même Ousmane Sonko bu bëggoon dellu ginnaaw ci combat bi ñun du dellu ginnaaw nañ xeex nañ reyante ànd xàccandoo doo yuuxoondoo doo mbàttandoo yàlla nu yàlla defal jàmm Sénégal day dagg xol asalaamaaleykum wa rahmatulah sama gars yi ba beneen yoon xam naa ci kanam incha allah dama nekk si job nii mais sunu sunu xol yi day daggatoo ngeen partagé bu baax partagé leen ko. Abonnez-vous sur votre chaîne OSR Monde et activez la cloche pour ne rater aucune de nos prochaines vidéo